dañu mës a am ay jafe-jafe ndax euh, xëy na nguur gi euh, mënu ci woon wala jotu ci woon dugal loxo loolu nag euh, jur na lu bari ci lu ñu mën a jàpp ne xëy na ay manquement la ndax xale yooyu nga xamante ne seeni wéyjur dañu namm nàmpatal leen ci daara avant ñuy def leneen ci seeni biir àdduna ñu choisir yóbbu leen daara pour ñu jàng ñooñu suñ demee ba wàcc alxuraan suñu génnee daara ji en général euh, du ñu am leneen lu def lu dul dem jàngi métier lu dul dem jaay comme ambulant wala bokk euh, xalaata dem immigré euh, soo leen comparé ak seen i yi nga xamante ne ñoom ñoo dugg école française possibilité yi ñu am ak débouché yi ak maanaam suñ demee ba doon mag jàng ba jeexal seen njàng war a mën a am ay responsabilité yu mag ci biir réew yi ndongo daara yooyu en général bi ci ëpp bopp amuñu possibilité yooyu looloo taxoon état bi jàpp ne nag dafa jotoon pour ñu corriger ñu corriger loolu mais nag euh, euh, li jara wax aussi mooy euh, loolu li ko indi woon du rek coobaru coobarewu état bi la parce que depuis tamu Senghor président Senghor namoon na ñoŋal daara yi mais nag xam nga ne daara yi dañu am complexi complexité boo xamante ne Euh, xëy na soo jëlee dëkk bu mel ni Touba ñoom foog naa dañu sori woon tellement ci wàllum diine wàllum njàngalam alxuraan que ne euh, dugal ci njàngalem tubaab bi wala état bi dugal ci loxoom jël en charge njàngalem daara yi dafa posé woon foofu problème euh, biir bu yàgg mais nag par la suite ministère éducation nationale dem jëloon initiative waxtaan ak këru diine yi waxtaan ak acteurs su secteur daara yépp ba convaincre leen ci euh, euh, nécessité wu euh, ñoŋal daara yooyu looloo tax daara bi ñu taxaw projet bi ñu tax ñu taxawal ko fi li ma ci mën a dolli leneen mooy juróomi pàcc moom moo constitué projet bi bi ci jiitu mooy lu jëm ci ñoŋal lépp lu jëm ci wàllum tabaxit tabax ci biir daara yi ndax projet bi war na tabax euh, juróom-benn fukki daara ak ñeent mhm. benn xaaj bi maanaam fanweer yeeg ñaar yu njëkk yooyu ay daara cosaan yu ñu war a ñoŋal la développer leen moderniser leen beneen xaaj bi mooy beneen fanweer ak ñaari daara yi ay daara publique lay doon moderne maanaam ay daara yoo xamante ni état bi moo leen di créer euh, yóbbu fa ay xale yóbbu fa ay enseignants fonctionnaires Euh, ñuy fonctionne ñuy ñuy ñuy dox comme école élémentaire pàcc bi ci tegu mooy saytu lépp loo xamante ne dafa jëm ci formation programme yi nga xamante ne moom la ñu war a jàngale ci biir daara ji te lépp nag euh, mokkal alxuraan lal ko boobu programme boobu aussi dañ ñoo ngi koy tabax tabax nañ ko sax ba pare ci biir ci wàllu projet bi beneen pàcc bi mooy lépp loo xamante ne dafa jëm ci wàllum euh, manuel maanaam livre yi nga xamante ne moom la ñuy jàng xale yi moom la war a jàngee ci biir daara ji ak livre yi nga xamante ne moom la euh, enseignants yi war di jàngalee xale yi ci biir daara ji yooyu aussi ñoo koy tabax fi mu toll nii am na sax yoo xamante ne jot na pare euh, fànn bi nga xamante ne moom mu mujj ci ñaareelu pàcc moomu moo jëm ci lépp loo xamante ne dafa nekk euh, ci dafa jëm ci nekkinu xale bi ci biir daara ji mooy ci wàllum wér-gu-yaramam

Euh, loolu service yi nga xamante ne ñoom ñu yëngu fii ci biir ministère éducation nationale ci lépp loo xamante dafa jëm ci modernisation daara yi euh, projet projet bi day ñëw pour jàppale leen ci wàllum matériel wàllum jënd oto wàllum lépp loo xamante ne dina leen permettre ñu gën a xarañ ci mën di euh, saytu lépp loo xamante dafa jëm ci modernisation des daara projet bi day jàppale service yooyu pour ñu gën a mën a euh, action yooyu nga xam mission yooyu nga xamante ne dañ leen ko dégg ñu gën ci mën a euh, en tout cas sax ci loolu foog naa mën nañ cité inspection des daara bi nga xamante ne euh, da di ab service bu dépend ci cabinet ministre éducation nationale dañuy collaborer et appui institutionnel bi pratiquement li ci ëpp ñoom lañ ko jagleel ñeenteelu pàcc pàcc bi nag maanaam quatrième composante bi moom mooy saytu lépp loo xamante ne mooy fexe lu tax euh, programme bi nga xam ne dañ ko tàmbalee du dem ba ci digg bi arrêté ndax daara yi amatuñ euh, moyens yu mën a permettre ñu mën a jël en charge xale yi ay moyens yu mën a permettre ñun li ñu nammee programme yi ñu koy jàngalee ci biir daara yi loolu du mën a ci donc pour loolu euh, projet bi dafa nekk ci tànku tax tabax benn immeuble bu mag bu ñu war a def wax wax fu genre fondation la rek euh, buy liggéey c'est-à-dire immeuble boobu suñ ko tabaxee ba mu pare 17 étages lay doon biir Dakar dañ koy tabax euh, lépp locaux yi yi fa nekk dañ koy louer dina doon ay bureau dina doon ay service dina doon ay appartement xaalis bi ñuy jëlee maintenant ci location boobu dañ koy jël delloowaat ko ci biir daara yi pour mën a permettre sëriñ daara yi ñu mën a jël en charge xale yi mais mën a jël en charge aussi enseignants yi nga xamante ne ñoom ñooy jàll jàngale ci biir daara bi ndax euh, baax na ñu wax ko du doonati rek que ne sëriñ daara bi day am ay jàngalekat yoo xamante ne xëy na ci biir daara ji lañ nekkoon jàng ba màgg mu jël leen ñu kon di jàngale te kenn du leen fay dañu nam état bi dafa nam ñooñu nga xamante ne dañu war di jàngale ci biir daara ji euh, dañu contractualiser ak ñoom borom daara bi day contractualiser ak ñoom maintenant lépp loo xamante ne appui jóge soit ci budget état bi wala mu doon appui bu jógee ci euh, waqfu boobu ma tudd léegi mooy immeuble boobu ñu war a joxe en location loolu yëpp dañ koy jagleel daara yi pour mën leen a jàppale pour ñu gën a mën a ñoŋal euh, daara ji ak njàngale njàngale bi. en principe daara yi dañuy évoluer rek jógee ci daara cosaan ak xëy na précarité ba fa amoon coono ya fa amoon pour ndongo yi ñu évoluer ci daara yoo xamante ne macha allah dinañ gën a bakkane euh, conditions yi vraiment dinañ gën a enviable et que dina permettre ndongo bi du xiif du mar euh, du rafle ndax dina mën a solo li mu bëgg ni mu ko neexee te aussi cadre bi mu évoluer dina ko permettre mu am mu sàmm wér-gu-yaramam sàmm cetam euh, daara non public yi ngeen xam ne ñoom ngeen taxawal ñu euh, doon ay daara moderne yi ngeen modernisé euh, léegi bu ñu leen defaree bu leen defalee jumtuwaay yi nga xam ne si lañ war a nekk ak war a war a war a liggéey. Mm-hmm. après ban taxawaay la état bi di am si daara yooyu. bon daara daara yi de toute façon comme ni mu ko waxee. Mm-hmm. Euh, xëy na projet boo gis. Mm-hmm. day am fu muy tàmbalee. am fu muy jeexee. mais su demee ba projet bi jeex. ça veut pas même su fekkee ne def nañ deuxième phase troisième phase ak lu ñu mënti def. su demee ba jeex ça veut pas dire que dañuy abandonné daara yi nee naa la am na inspection des daara. bi dépend ci cabinet ministre bi. moom mooy saytu lépp loo xamante ne. dafa jëm ci processus modernisation des daara. même su projet bi amatul. même su fekkee ne yeneen projet yi amatuñ inspection des daara day des. Mhm. parce que service bu ministère éducation nationale. Mhm. ñoom ñooy continuer di saytu. njàngale bi ci biir daara yi. Mhm. ñoy inspecter ni ñuy jangalé ak euh, euh, dundin wi ci biir daara yi donc lepp lo xamantene war na mëna a doon lu tax processus bi soxé ñom dinañ intervenir dinañ intervenir sur euh, euh, instruction de l'autorité pour que luñ ci wara a ñu joyanti ko té comme né na né lepp

fii ak téeméeri at fii ak at sax wax fi su yokkuwul du wàññeeku te wax fi seen objectif mooy fexe ba di out khalis diko ko ci bir daara ji di jàppale borom daara di jàppale euh, ndongo yi nekk ci bir daara ji pour ñu mëna euh jang dans des conditions yo xamné euh, yu bakane machallah allah mën jafé jafé euh au début problème communication la woon ndax euh, comme ni ma ko waxee woon rek euh, projet bu bees la ba mu ñëwee c'est normal que yenn acteurs sous-secteur daara yi xawoon euh, am méfiance maanaam di moytu mhm. parce que comme lu ñu mosul xam la am na ñoo xam sax gëmuñu ko woon mhm. mais ba ñu demee waxtaan ak ñoom ba seen xel dal vraiment foofu tollu fi nga toog noonu mhm. recevoir nañ fi ay sëñ du ma ne sëriñ daara mais mais mais ay kilifa yu mag kilifa diine yoo xamante ne su ma la tuddaloon seen tur xëy na sax doo ko foogee ñëw nañ ba sama bureau bi toog ñu waxtaan ci wàllum daara yi xalif généraux toute famille religieuse yu mag yëpp xam nañ yëg nañ projet bi te dem nañ fa mais surtout ministre éducation nationale dem na fa saytu leen saytu leen waxtaan ak ñoom

Euh, ba ñoo ngi waaj a ubbi sax yenn yi mais daf ci am entreprise yoo xamante ne dañ leen dénkoon liggéey bi mais euh, nañu doon saytoo liggéey bi dafa xaw a sooxe xam nañ nag ne comme ay petite et moyenne entre entreprise lañ wala petite et moyenne industrie xëy na euh, mën-mën bi moo xaw a des donte bëgg nañ ce qui fait que ñoom suñu commencé di tabax tabax ba un certain moment suñu commencé am ay jafe-jafe euh, ci wàllum xaalis tuuti rek day feeñ ci chantier yi chantier yi commencé taxaw chantier yi commencé traîner donte na donte projet bi du projet bi c'est-à-dire du banque islamique de développement bi nga xam ne mooy bailleur bi du état Sénégal bi nga xam ne day contribuer ci fayum entreprise yooyu du ci kenn koo xamante ne euh, pay mi yéexa na ci yow xëy na sax mën na xaw a jaaxal ñenn ñi parce que entreprise bi nga ngi fay normalement euh, ci yoon warul taxaw mais da ngeen di jàpp ne entreprise yi dañu am projet nekk ci projet bi di projet aussi di tabax ñun suñu di fay normalement xëy na projet normalement te ñoom soo leen fay xaalis bi su ñu bi pour projet bii la wala pour la dañuy ñëw rek ni ñuy liggéey ce qui fait que su fait ne am fu forcément donc dañuy dem ba moyens yu liggéey bi ñu ko amati dañuy taxaw di xaar donc loolu bokk na ci li nga xam ne moo gën a tardeel moo gën a yéexal tabax boobu mais su tabax yi pare incha allah leneen li nga xamante ne mooy wàllum programme yi wàllum formation yi wàllum euh, même manuel yi euh, macha allah yooyu yëpp sori na euh, yi ci gën a bëri sax pratiquement pare nañ leen même pour wax bi ñuy wax noonu actuellement étude de faisabilité bi nga xamante ne moom la ñuy def. ànd ceeg haute autorité du WAF étude boobu pratiquement jeex na euh, xam naa ne léegi ñu war a mën a recruter entreprise bi nga xamante ne moom mooy war a tabax immeuble boobu pour ñu joxe ko en lépp lu fa jógee ci koppar ñu delloo ko ci biir daara euh, tabaxu jumtuwaay yooyu dina wàññi xale yi nekk ci mbedd yi euh, gis nañ ni tamit chef de l'État ñu ngi leen di ñaax toujours pour déploiement national seen projet bi parce que projet bu mu am yaakaar la euh, waaye ba léegi statut daara bi ñun ñaa ngi kii adopté guñ ko validé buñ ko kii ak yooyu yëpp ba ñun ñi am na ONG ay plateforme de ONG sax yu jóg ñuy naan xëj na yéen ak euh, kër diine yi daal da ngeen a xaw a qui am loo ni xawa ragal seen diggante ñagas ak kër diiné yi motax ba légui eggagoo leen ci walu woowu. waaw euh, foog na né pour euh, projet bi d' déploiement bi. Mhm. foog naa wax na ko dañu am mhm. un objectif. Mhm. sur cette région. té la ci war yëpp ñoo koy def. kon fofu y' a pas de souci. et li nga wax aussi. Euh, président de la république effectivement comme lepp lu jëm ci diiné bi. lepp lu jëm ci walum daara yi surtout. ak lepp lu jëm ci xale yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci daara yooyu euh, lu ko yitteel la kooku wax na ko du benn yoon du ñaari yoon et foog naa ne loolu aussi Sénégal Sénégal Sénégal yëpp xam nañ ko donc euh, effectivement comme ni mu ko waxee woon conseil ni mu koy waxee conseil des ministres ak occasion yi am yëpp rencontre ak premier ministre aussi ak acteurs yi acteurs daara yi muy kër diine yi muy association maître coranique yi di association école coranique yi ñoom ñëpp foog naa ne nangu nañ ne projet bi ñoo ngi ciy dox ay jéego yu am solo macha allah donc foofu euh, amuñ ci benn xel yaar projet bi ni ko état bi namee ni ko président la république nammee ci loolu lañ nekk te macha xam naa ne du yàggati ñu ubbi daar yi benn partie ci daara yi nga xamante ne réceptionné nañ ba pare li nga xam ne maintenant moo jëm ci wàllum cadre juridique mooy loi ben projet de loi ak euh, cinq projets de décret mm-hmm. tabac nañ ko ba ben valider nañ ko euh, en présence euh, pratiquement famille religieuse yëpp mm-hmm. su ma des acteur du sous-secteur des dar bàyyiwul kenn mooy association maître coranique des association école coranique di kerou dîner yi ñoom ñëpp ba ñuy projet de loi projet de décret invité woon nañ leen ñoom ñu bokk ñëwuñu seetaan mhm. dañu ñëw bokk participer ci ba ñu ko ba mu bi mu une une validation sociale Nous avons ci validation sociale boobu dem projet de loi bi ak projet de décret bi ñu dem ko le premier ministre premier ministre yóbbu ko conseil des ministres ba conseil des ministres validé ko depuis le 8 juin 2018 kon ñun projet ce qui est na ONG yi di préoccupation mais xam aussi euh, président de la république ak gouvernement bi dañu am agenda ak objectif man pour euh, décider ne dem assemblée wala dem assemblée parce que xam na ñun mais gëwuma ne gëwuma xel dafa ak famille religieuse wala diggante état ak tout acteur bu nekk ci sous secteur des dar loolu amul parce que su fekkoon ne loolu amoon na ci njëlbéen ba la woon maanaam ba fa ñu doon tabaxee euh, projet de loi projet de décret comme ñoo ko defandoo à Saly ba ñoom ñëpp ñu validé ko ba ko ba ko premier ministre di recevoir aussi ñoom toog nañ fekkee ko amul kenn benn famille religieuse benn membre association taxawul ne anduma ci ñoom ñëpp

wala fépp fu ab euh, wéyjur namati yóbbu doomam que mu wóor ko ne ko condition wu daara moderne yi ñoom ñoo te loolu lu mën a nekk la dañ leen di bëgg a dañu bëgg a xëcc tout ce qui est daara donc ñu évoluer vers ce modèle du daara moderne. Euh, ci modèle daara bi ngeen bëgg tëral euh, duggin bi nan ngeen koy tërale ak xale bi bu duggee. ban cursus lay am. waaw duggin bi moom euh, su fekkee ne euh, daara cosaan mm. foog naa ne mën na bañ a changer. Mm. na mu doon doonee rek euh, wéyjur bi nga xam ne dafa nam doomam jàngi ci daara ji. Mm-hmm. mooy jël initiative. Mm-hmm. jël doomam di dénk ko borom daara moderne mm. parce que léegi du ma daara daara moderne lay wax. donc kooku initiative personnelle parent bi la. mais ci daara publique bi aussi presque du wuute parce que parent bi nga xamante ne dafa nam yóbbu doomam ci daara moderne bi moom mooy jël initiative suñu ne inscription yi commencé nañ wala école ubbi na moom day dem yóbbu doom gi inscrire ko comme nañu na mu mënoon a jëlee doom ji inscrire ko ci école classique française bi maintenant daara moderne bi xale bi à l'âge de 5 ans soo amee juróomi at lay dugg ci biir daara

Manam niveau CI CP et C1 mais di jangale aussi arab su demé ba jéxal at bi ci biir daara bi japp nañ euh mokal na wala euh na na cinquième année mu jéxal juróom-benn juróom at bi juróom-ñaareel ba juróom ñetti at yi des dina continuer di jàng xam-xamu mais en même temps day continuer njàngum français bi muy niveau C2 CM1 ak CM2 ak arabe aussi day continuer di ko ce qui fait que su ba boucler ba jeexal juróom-ñetti at bi ci biir daara euh, natangom mi nga xamantene ba muy am juróom-ñaari at le dugg ci école française la muy xam ci français Qui dina ko xam ci français le ci nak dina fekk mom niveau arabe deugur dëgër la am tegaat ci alxuraan bi mokkal na ba de côté donc loolu dina ko permettre mu dem même examen entre en sixième ak CFE que xale bi à l'âge de 7 ans dugg ci française su il y def mu am certificat am en ñetti possibilité soit mu continuer def un cursus normal euh, ci collège d'enseignement moyen général mu mhm ensuite continuer dem lycée wala bok mu choisir dem ci collège bilingue franco arabe continuer ci amna na wala bok mu def fi filière professionnelle muy mu jàngi métier euh, mën à terme am ben diplôme foofu soit euh, électricité wala leneen pour mën continuer après doni ingénieur avantage bi mooy ndongo jooju nga xam dañ ko doon yóbbu ci daara ji su defee foofu juróom-ñett juróom-ñett bu fukki at génn di taxawaalu kooku su génn su defate ci daara ji lay des lépp lu mu soxla ci xam-xam dina ko fa jàng muy wàllum diine muy wàllum àdduna te su paree wàllum diine dina mën a continuer xam-xamu àddunaam ba mën ci jëriñu mën ci doon journaliste mën ci doon avocat mën ci doon magistrat mën ci doon comptable ak ingénieur ak médecin ak lépp lu ñu mën a xalaat parce que cursus normal lay continuer ba mu mokkalee alxuraan ba pare donc pour dire que Euh, daara moderne bi li muy indi mooy déjà njàngum alxuraan bi priorité lay doon te moom mooy doon base bu lépp mais lu jënd njàngum alxuraan boobu dinañ jàng xam-xamu àdduna français ak arabe te loolu moo koy permettre mu continuer ba mën a euh, en tout cas assurer avenir am. Euh, si seen wéyali liggéey mën nañoo xalaat jëmmi jamono. maanaam daara traditionnel yi disparaître wala Sénégal lépp daara yëpp dañuy moderne en fait euh, benn daara du seey benn daara du du réer benn daara du tëj li ñu nam mooy ñoŋal daara yi donc du doon ne dañu naan daara teel daara cosaan tëj nañ ko tas nañ ko amatul déedéet borom daara ba dafay des ñu moderniser ko

que euh, ñu bëri yaakaaroon nañ ne xëy na heure bii enseignement apprentissage yi waroon nañ mën a démarrer maanaam daaray ubbi et loolu ñoo ngi ci yaakaar nañ ne daal euh, fi toll nii par rapport ak daara yi nga xam ne jot nañ leen réceptionné. fii ak weer daal incha allah bëgg nañ ñu def lancement ouverture daara yooyu maintenant une fois que ñu déroulé ba daara yu ubbi foog naa ne la ca des mooy doon xëy na dem ci phase d'évaluation éventuellement xool aussi nan nañu fexe ba am une mise à l'échelle maanaam tas ko ci biir réew mi yëpp